benn zikr buy tere nit mu fay nuyoo zikr boo mun a def su nee ne asalaamualeykum wa rahmatullah war a arrêté zikr bi daan ne wa aleykum salaam wa rahmatullah parce que nuyoo la waaye fay nuyoo fay nuyoo bi taxiyatin lan la ci yàlla te ah aw aw rudduha fa xayyu bi ahsani minha aw gis nga farata la suñu la ne assalaamu aleykum waaye na pat nga ne pat am nga bakkaar su leen ne assalaamu aleykum naa ko waa jaajëf waay am nga bakkaar voilà ça ah va waaw ça va am nga bakkaar bu rëy yàlla nee na bu ñu la waxee asalaamualeykum wa rahmatullah waxal wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu fa iza xuyitum bi taxiya bu ñu leen nuyoo am nuyoo lan la yàlla ne ngeen fay nuyoo ko wala ngeen delloo ko lu gën a rafet kon nag yow ñu ne la salaamaaleykum wa sawa waay gars yi waaw sawa sawa koy bàkkaar bu rëy la ci bàyyi xel asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu la koy fay ah. gars yi boo ko ñaan malaaka nga ko. waaw waaw ba tey moom dina la taxe lu nekk mais euh, jàpp saxal foofu rek am na benn kër bu ma doon jàngale ndeysaan su ma ñëwee euh, waa ji li mu ñëwee mu ñëwee rek mu ne tëllee rek saa si bonjour waay. waaw ah, salaamaaleykum. bonjour neen def waaye mujj gi waxal ko boobu rek bu ñëwee bonjour ma ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mujj gi day wax ne ah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah est nit ñi foo ñu xamal leen lan mooy nuyoo ci islam ay jàmm nga fanaan ak jàmm nga yendoog naka nga nangam ak yooyu du ay nuyoo nuyoo ci lislaam mooy asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nuyoo yàlla tabaraka wa mu ngi ko jërale ca bàyyi aadama jàngal ko ko yàlla ne ko lii mooy sa nuyoo yaag sa xeet seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam def ko muy sunu sunna kon loolu mooy sunu nuyoo ñun ñëpp loolu lañu war nuyoonte beneen bi mooy benn boroom xam-xam seetlu bu ndaw bu mu seetlu tey mu ne yërmande dafa ñàkk ci àddina bi yërmande ñu ne ko waaw mu ne xam ngeen lu ko waral ñu ne ko déedéet mu ne asalaamualeykum falagaa yi yam kenn dootul wax léegi wa rahmatullah maanaam nit ñi dootuñu ñaanalante yërmande comme léegi yërmande kenn dootu ko ñaanal sa morom yërmande dootu amati asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaye ñu ne waaleykum salaam waaw waaw ana wa rahmatullah moom waxu la ko yow waxu ko xam nañu bàyyi xel ne wa rahmatullah dafa am importance ci néew mm-hmm. mooy da nga ñaanal nit jàmm waaye ak yërmande jàmm ak yërmande assalaamu mooy jàmm raxma mooy yërmande ah ñaar yooyu moo tax yàlla tënkal nu ko indil nu ko yonante bi sunnaal nu ko ci ñun ñu koy war nuyun ci loolu ñu war koo xam bu baax a baax mooy nuyoo waa aljanna hmm. fekkee ne am na beneen question